Rewmi 24 TV. mi ngoog daal di nay euh, doy waar ci ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Bah Diakhaté Bah Diakhaté bi nga xamante ne rek daal di nañ koy arrêté ni ki sànq ci ngoon ngir ay révélation yoo xamante ne rek euh, yëkkati woon na ko teg ko ci ndoddum ki nga xamante ne rek moom mooy premier ministre bii di Ousmane Sonko moom mii di Bah Diakhaté nit ki noonu nag ginnaaw rek bu nga xamee ne. nii di waa dikk daal dinañ koy arrêté fii ñuy wax ak yéen ni moom Bah Diakhaté nag ah, bu ñu sukkandikoo ci nag journaliste bii di ah, Ngoné Saliou Diop moom nag ma ngay xam ne ne Bah Diakhaté jamono yi nee na du répondre nag benn question loolee la ñu xamle ci ñi ngi ko jëlee nag ci ki nga xamante ne rek moom mooy Ngoné Saliou Diop moom daal kon mooy xamle ne ne fii mu toll nii Bah Diakhaté ginnaaw rek ba ñu ko arrêté ngir kàddu yi ñaaw a ñaaw yëpp doo xam ne yëkkati na ko tekkati ndoonu premier ministre bi di Ousmane Sonko niki noonu rek ñu bari ci askan bi doon sàkku ngir ñu daal di koy arrêté niki euh, bërki démb ba léegi moom mii di Bah Diakhaté nag daal di nañ koy arrêté mu mel ne kon yàggul yàgg na rek muy euh, def li nga xamante ne moom mooy. wahinya yu ñaaw yi di ko jëmale ci waa pasteur rawatina nag ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ni ki noonu kon daal moom mii di euh, ba jaxate bàyyilul dara Ousmane Sonko ci vidéo bi nga xamee ne nag yëkkati na ko ci ndodum premier ministre bi Ousmane Sonko mu mel na fi mu toll nii nag kon waa dikk daal dinañ koy euh, jëli waaye daal mu mel ne euh, ngoone Saliou Diop moom nag ma ngay wax ne kii di ba jaxate kon jamono yi daal dafa rek bañ répondre benn question moom loolu la xam ne nee na répondre benn question mi nga kon ñoo xool fan la wanante di mujjee ki itam ci ba jaxaté ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa DIC.